salaamaaleykum wa rahmatullah wàllu xew TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay man la ma Mama Daba maay ñëw di intervenir ci thème bi ngeen dugal parce que man de honnêtement man de lii def ma sax jaaxal parce que c' est une histoire très rocambolesque te lii bu fekkee ne c' est une réalité dëgg la nga xam ne kon c' est une famille très bizarre te kan comprendre lu mu demee parce que tamit nit un couple. man ni nga mun a dem di dem ci euh, kër di seeti quelqu'un mu nekk faak sa dame et ses enfants te munoo desale ne kii jabaram la loolu man lu ma jaaxal la lu ma ëlëm la xaw ma am na xaw ma amul mais honnêtement c'est une histoire rocambolesque euh, qui bu ko de réflexion te man <laughs> daal euh, y a des zones d'ombre quoi parce que tamit déjà yow ngay ñëw man ñëw bi kon amul sens parce que bu fekkee ne waa ji lay seet si te du fa fekk waa ji sœur waa ji dafay fekk chaque fois kon dem bi foofu ban sens la am loolu aussi c'est un fait te lu mat a seet la moo tax daal ñoom tamit bu ñuy dugal ay histoire il faut pas qu'il nous mène en bateau du ñu dugal histoire yoo xam ne kenn xamul nu mu demee parce que lii tamit c'est un peu bizarre jabar ji aussi elle n'a jamais manifesté que moom mooy euh, la femme du gars wonewul dara loo xam ne daal euh, jabar la ci kër gi di sëy kaw ko mooy jëkkëram man loolu jaaxal na ma te déjà yow à chaque fois que tu vas dans cette maison là tu ne trouves pas le gars gars bi ne la tu me mais loolu ça devait te la puce à l'oreille comme on dit nga xalaat ne lii y a quelque chose y a anguille sous roche qu'est-ce se passe xale yu jigéen ñi tamit léeg-léeg parfois dañuy dugg ci yoo xam ne honnêtement euh, c'est inimaginable parce que man histoire bii de vraiment man ça me dépasse parce que y a beaucoup de zones d'ombre yoo xam ne même suñ ko éclaircir aussi euh, ça nous laisse dans le doute doy na waar daal doy na waar trop man de jaaxal na ma vraiment jaaxal na ma. xale yu jigéen aussi nañuy am seetlu parce que xale yu góor yu bari dañ koy def am jabar ba pare di la nax mais nag mën na la ko nax pendant dix ans vingt ans na fekk yow demoo ci kër ga mais kër gooy dem tous les jours et puis ta belle-sœur là belle bi tamit sœur waa ji tamit honnêtement doy na waar dafa mel ni ñoom daal ils sont tous tous complices wala y a quelque chose wala nga xam ne daal am na daal dañu bëgg a nax xale bu jigéen bi man daal vraiment y des zones d'ombre yoo xam ne honnêtement man je n'ai pour man c'est une histoire rocambolesque boo xam ne jaaxal na ma daal ça ressemble plutôt à un compte de fait